nga bëgg président de la génn ci justice bi la république ku koy représenté mooy ministre de la nga dindi ko mooy bi boo supprimer ministre la justice nga créer autorité ñoom danañ am indépendance mais tant que yaa ngi am ministre de la justice indépendance bi amagul looloo tax ñu ne li gën a gaaw mooy ñu dindi ko président du da du da ngay wàññi doole mooy da nga naan ko bàyyi li nga xam ni sa yoon nekku ci ndax dañ ko wax ne ko séparation séparation des pouvoirs ne euh, judiciaire législative mais yooyu rek lañ koy wax ne ko sotti ci sa loxo mooy yow yaa ngi lekk ci ndab loo xam ni moomoo ko mooy ñëpp xam ne président moo yor armée bi moo xaalis bi mais buñ ne ko sotti ci sa loxo loolu wàññiwoo pouvoir am mooy da nga ko bàyyi ne ko ñaar yi bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey pour sa intérêt yow sa premier intérêt mooy ñu am seen indépendance ba yow boo bëggee juum ñu ne la fii ngay bëgg a baaxul nga arrêté fee ñu ne ko na atte ba nga xam ne yow sax bu la dalee ñu man la atte loolu mooy loolu li ci des moom mooy moom mooy exécuté kay def moo yor doole ji nga xam ne nii moom tànk jëfewu ko njariñ la du am loolu la looloo tax nag ngeen war a xool seen carte yi ngeen di jox ñi nga xam ni politicien rek politique rek la ñuy def danañ rayante xeexante waxante du ñaaw waaye bu seen intérêt euh, menacé ñu dajaloo waxtaan déggoo fàtte peuple bi l'exemple est là xalaat bi moom euh, du lu bees ci àdduna bi du lu bees du lu bees ndax àdduna bi bari na fu mu am munul nekk suñ programme yëpp dafa xaw a niroo ah. moo tax man may wax nit ñi leen programme bi baax na mais ki ko proposé ndax ku ko mën a exécuter la. na mas a def lu mel ne moom ci ci àddunaam man boo dikkee ne ma loo mas a def lu mel ne ci sa àdduna partenariat public privé. boo xam ne mi ngi dox ma lii laa ci def ba loolu créé na daanaka soo xoolee Kaolack créé na lu mat ay 2000 3000 emplois ay centre d'incubation agricole ak unité formation et transformation agricole ak yeneen ak yeneen créé na ko mën naa ne lii def naa ko te yu mel noonu laay dénk direction boobu daa yi gën a populaire nag ñu di ci wax médias yi di ci wax léeg-léeg moo wax na lee médias sax sont vraiment un peu injustes parce que tout le temps soo xoolee débat yi yëpp ñaari kan rek la ñuy wax Sonko Diomaye Macky Amadou la ñuy wax waaye nag bëgg nañ ñu wax ci ñun parce que am nañ lu ñu wax ci ñun loolu c'est un peu tromper la population la population kenn nit la ñuy élire amul ticket présidentiel bon munoo jël nag affection bi nit ñi am wala yërmande ci nit ñeen wala avantage bi nit ñi am dégg naa ñu ne président mi ngi wàcc ci terrain bi loolu tamit rafetlu ma ko président mënoon na nekk une personne neutre day dem ñëpp njabootam lañ ku gañe mu jox la voilà Sonko tamit sama xarit la waaye tamit mënoon na bàyyi partem tànn moom mu génn ci responsabilité parce que dafa am danger bu ci am imaginez deme Diomaye réussit sa mission su fekkee gagné na ce que tout le monde souhaite su fekkee gagné na mu réussir sa mission je souhaite que je souhaite man ma gagné waxuma je ne souhaite pas Diomaye gagné dama ne je souhaite man ma gagné mais on m'a imaginé Diomaye léegi nag tout le monde souhaite que mu réussir mission dégg ngeen li ma wax mhm. c'est clair mhm. tout le monde souhaite man y compris moi ki gagné nga réussir mission mais bu dee gagné man laa bëgg imaginer moom mu gagné réussir mission euh, c'est-à-dire Sonko day fay. politiquement politiquement il faut dire la vérité parce que sénégalais yi dañu man ku toog ñu ne la yow la. def nañ ko ci Abdou Diouf a Senghor def nañ ko ci ñëpp Amadou Ba mii mën naa am bi ko Macky Sall ne toog léegi am na ay problème yi ngi naan mën naa am de kooku c'est pas une question de valeur jub na c'est humain nit moo mel noonu bi gën a garaaw mooy mu échoué mais on dit sa c'est Sonko yow yaa ñu yaa fi indi Diomaye nag euh, man daal démocratie sénégalaise nii ma ko gisee rafetlu wu ma ko démocratie daal bala ngaa gëm da ngay gëm sa bopp te man loolu laa mas a jaar bi ma bëggee mairie dawuma làqatu ci Ablaye Wade làqatuwuma ci PDS làqatu dama wane samay capacité wax ne nit ñi ñu woteel ma kenn mënul wax ne wotewuñ parce que Serigne Mboup la mais yëpp xam ngeen bu baax ne élection yi bi jàllee Amadou Ba dañ naan woteel nañ ko parce que Macky Sall tax Diomaye woteel nañ ko parce que Sonko tax mais loolu nag du démocratie et looloo taxoon sax ma gën a Diomaye xaw ma ko je voudrais bien que suñu ko mayoon mu am benn débat public boo xam ne ne candidat yi dañuy génn ñu wax mais bu boobaa man candidat yi ku ne danga nga xam ku la man man bu ma keneen manee foofu laay déclaré ne kii. mais bii moo gën a danger bii dañuy wote pour ndigal ah war nañoo dépassé loolu na candidat yi génn débat wax ak population bi ku ci mën a wax population tamit laa leen demandé nañ bàyyi émotion yi te déglu candidat yi seen i programme seen i jaar-jaar liñ man suñ ko deful danañ ko reccu voilà danañ ko réccu mais man auma problème man moom su ma xamee ne politique. liñ ciy wut mooy wax nit ñi dëgg ñu dégg ko ah wax leen ne leen kaay ñu dem nanguwuñ ko dégg ñu xam ne politique du suñ place ñun xam nañ niñ ci génne incha